alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalami rashidan wa murshida wa fikratan nawwir wa qalbi arshida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 fas yéene di ko yéen ci seen xikmatul yow mi bi ñu leen baaxoo andil bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak xam seen bokk saalihu si di leen ko defal tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul mu jógee ci njàngale mu am solo moom mi nga xam ne nii daana ko njàngale ngir yéene jullit ñëpp muccuk àdduna ak àllaaxira ak njëriñul àdduna ak àllaaxira te ku na xam ne moom loolu moo doon ab taxawaayam Euh, sëriñ Touba yërmande yi suñ boroom la waaye xéewal ak suñ borom la gukk euh, ay principe am ak xëdëfam objectif am lépp mooy mbindeef yi am teex ak àdduna ak alaaxira ba tax na mës sa dañ ci di dénkaane yoon wi nga xam ne nii mooy yoon wañuy jaar ba mën a mucc àdduna allaaxira waaye jariñu tamit àdduna ak alaaxira euh, tey ñu am ay bayit yi ñuy barkeeloo ci téeram ba ñuy wax ma xaalixul neeraan nga xam ne mi ngi ko bind ci wàllu tasawuf bi ci soññee ci wàllu xam-xam te ku ne xam ne ne moom nitu xam-xam la woon euh, sëriñ bi ko fonkoon xam la joxoon ko ahamiya euh, ba tax na daawul neenal dund kenn ci ludul mu teg ko ci yoon wu muy xamloo bu ñu seetee sax ni muy waxee nga xam ne day soññ mboolem jullit ñi rawatina taalibe yi ñu gaaw buur jëm ci sàkku xam-xam ci ni muy waxee rek nangeen gaaw jëm ci xam-xam yéen ñëpp bàyyiwuma kenn te ngeen jëm ci ngir jëm yàlla rek maanaam bu leen ci bu leen ci am benn jubluwaay bu rut ngir yàlla fasaariu lil ilmi ajmaina li wàcci sil jalaali qasidina waaye nag gannaaw bu ci soññee ñëppit da cee gën a soññete nag ñi nga xam ne ni ñoom dañoo dañoo jiite mbooloo maanaam ñi ñuy wooye ay sëriñ nga xam ne ni ay nit dañuy dañ leen di topp ci yoonu yàlla Euh, ndax ñëpp ay sàmm lañ ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa waxe waxee kullukum raain wa kullukum masulun an rahiyati kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te boo léegi suñu borom dana ko laaj ak caawam dam daan sàmm waaye nag masuli yi tolloowuñu maanaam responsabilité yi am na koo xam ne ni mu mbooloo mu bare bare bare la jiite am na koo xam ne nii mbooloo mu yem la jiite am na koo xam ne ni sax waa këram rek lay sàmm ak njabootam nga ne ma ki nga xam ne ni kon amut waa kër amut mbooloo amut taalibe amut dara ma la kooku day juróom-ñaari cëram lay sàmm ñooñu lañ koy sàmmloo kon ku ab sàmm amut moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax loolu moo tax sëñ Tuubaa daal ne rek waaye yéen ñi nga xam ne ni da ngeen di jiite mbooloo bala ngeen a jiite kenn wala ngeen di wéet ci seen bopp wala mbooloo di leen topp na ngeen xamlu bu baax a baax xabla tasabduri wal infiraadi bi nafsi wala atbaai fi tamaadi ndax nee na kat lëndëm lëndëmi bi daay e, pas-pas day fekk leeri topp sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa maanaam nit ki bu sàgganee ba pas-pasam lëndëm nga xam ne lëndëm na ngir topp bidaa dañ koy xañ leeruk topp sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa moo tax mu ne izulumaati bidaati ixtiqaadi takufu anwaar tibaa'il haadi dala nag képp koo xam daf leen a tere ngeen di xamlu na ngeen xam ne tereem googu mi ngi askanoo jëm si ak réer ay réerale kon nag sëriñ bi moom euh, libéré na ñëpp ci ñu jéem a xam lu tax nag euh, nit ñi taxaw temm ci xam-xam ak diine ñu féetale ko aw nit daal na ñoom ñoo war a xam lu ñu ci des lu ñu xam ci seen diine mu doy ñenn ñi sax duñ ko jéem dañ naan ab sëriñ wala doomi soxna daa war a xam lu déedéet te loolu pexe seytaane la xam lu ñëpp ko war a def. moo tax sëñ Tuubaa ne wa man nahaakum ani taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami mu ne ngir képp ko leen tere ci jamono ji xamlu nangeen xam ne woote na jëmee ci biddaa bu ñaaw ndax jëf lu mu rëy rëy bu tegewut ci xam-xam dafay yàqu is kullu man fi sa zamaani manaa min taallumi fa innahu daa li bidaatin shaniatin isil amal in lam yakun bil xilmi shaabahu xalal te sàkku xam-xam day farata ci ab jullit